tey nag fi ñuy dóoree mooy kii di Mame Birame ginnaaw bi mu dalalee ki nga xam ne mooy El Malick ba laaj ko tey jomaay bu falu woon nan lay demee ndax dañuy am président boo xamante ne dafay daal di am li nga xamante ne mooy patron wu boppam muy Ousmane ci biir vidéo bi kii di yaakaar naa mooy Idrissa leeral na tontu na ni que président mënta am li nga xam ne mooy patron président nekk na loo xamante ne c'est collégial amul kii mooy patron. élection bi amul le président c'est un individu bo xamante mom moy nek à la tête de toutes les sénégalais nek père de la nation di doxal doxalin bopam nañ jëm seetaan vidéo bi ñëwaat. est-ce que Diomaye président du ñu am un sénégalais président de la république ba paré am patron ci réew mi muy Ousmane Sonko. Ah, mais lolu est-ce que c'est un problème. C'est la question que je pose. Non, c'est pas un problème. Ça change Ils vont gouverner ensemble. Mm-hmm loolu sa nee la Diomaye moy Sonko Sonko moy Diomaye comme aussi président Ousmane Sonko mën na au-dessus de la mêlée dico, dico, dico ko dico, conseiller di le président coach non non dico conseiller j'ai bien dit président pas un coach hein ils sont tous coachés nous mhm. ne mën naa nekk scénario bu ne mën naa nekk mhm. li am solo ba am solo moy mhm. projet bi na gagner ba pare ñun légui le président de la République ce n'est pas une fonction collégiale c'est une fonction exercée par un individu seul c'est à vous que revient la charge de définir la politique de la nation et de l'assumer c'est à vous de nommer aux emplois civils et militaires c'est à vous de gérer les actifs du pays et de les protéger contre le vol et le pillage c'est à vous

réew moo xam ne ñëppay théâtre donc acteur principal bi Diomaye lay doon euh, ak ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko ñu ñu nekk ay figurant euh, wala ñu nekk ay ñi nga xamante ne euh, kii daal ñun ñooy joué rôle yi daal loolu lañ bëgg ñoom scénario daal la daal ñoom daal na projet bi jàll rek ban projet man man nee naa leen man projet Sonko man projet waa Pastef man boo leen ko xamee doo leen ma ko wax tamit bëgg naa ko ma nettali seen projet de fekk du jaayum bracelet du du du du du xeex système bi ndax système bi ñoom ñoom ñoo fu mu nekk ni ñoo raw système bi bu dee dictature ñoo raw dictature dictateur àdduna yépp ñoom ñooy ñoom ñooy number one p première ñoom la ñoo fi dàq dicté ndax dem nañ ba ne ñoom soxna xale bu jigéen bu bu bokkul ci Pastef ñoom duñ la takk xanaa dictature fa la yem ku nekkul Pastef duñ la takk dictature fa la yem di ki ma bëgg nga war a bëgg mën a force billaahi ñii bu bis bu ñu faloo ba teg seen scénario xam nga série tey bu ñu la convoqué tey waa Evenprod tey bu ñu woowoon Zeyna dañ lay proposé na la rôle bi laa bëgg nga joué bu dee arrangé na la bu dee Zeyna arrangé na ko mu ne carrément role bi mënuma ko joué mais ñoom bis bu ñu tegee seen scénario mu neex la mu naqari la rôle bi ñu lay jox di nga ko jouer force ndax ay dictateur lañ ndax bi ñuy demee ba naan ku bëggul Sonko ku bëggul Pastef duñ la takk yaakaar naa dictature fa la commencé te fa la yem te nee nañ ñoom seen seen seen gouvernement bi scénario la Sonko daal ak ak ak ak ak ak Diomaye ñooy nekk les scénaristes ñut ñoom ñooy tànn seeni euh, euh, acteur ak seeni actrice léegi nag rôle bi duñ la laaj neex na la wala neexu la li leen neex ngay jouer force bu ñu la neen fu teggul ba set role bi ngay joué loolu ngay joué amul choix ndax ay dictateur lañ te comme ñoom seen seen seen nguur daal scénario lañ bëgg daal scénario loo xamante ne musul nekk réel scénario théâtre walla série télévisée ah ah ndax léeg-léeg ñu joué la rôle pauvre fekk yaa gën a rës ci àdduna bi xam ngeen loolu du dëgg léeg ñu joué la rôle boo xamante ne da ngay alal bu dul jeex ngay am ci série bi. fekk yow boo génnee da ngay ñaan pass taxi pour nga ñibbi sa kër boo tourné ba pare xam ngeen xamante nañ donc ñun ci scénario boobu daal lañu lañu bëgg a jël daal jël réew mi rek teg ko moo tax Idrissa Seck tontu na leen nee na leen am réew du foo am réew du du du doo doo nekk ba pare nekk président may wax mu naan waaw mën na nekk premier ministre Sonko fan lay nekk premier ministre jo yéen man lima ma jaaxal nee na moom bul wax bu ñu faloo ñun falu nañ ba pare yéen da ngeen feebar boo leen yaakaaree man jomaay mi may gis ñun dinañ ko jox suñu Sénégal gii yéen a ngi nelaw te boo leen yaakaaree wax ju bëri ji nekk ci euh, réseaux sociaux yi mooy fal jomaay yéen a ngi nax seen bopp ñun faluñu jomaay faluñu ko de faluñu jomaay yéen fal ngeen jomaay ci seen xel yéen a ngi bind seen scénario sénégalais dégg ngeen El lu mu tontu nee na na projet bi jàll rek ba pare. te maa ngi leen di indil Moustapha Diakhaté lu mu wax ni moom mooy projet Pastef jadi jadi jangan tahu Yon di gete di fi waj Yon ti nyam wakule